ليلة القدر خير من ألف شهر asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu soxna si ñoo ngi jël sunum nuyoo ak nuyoob soxna Aysatu ak nuyoo mbooleem waa kër gi yëpp di ko teg ci loxol soxna nday bu sa mii mu tegal ñu ko ci sa loxo nga teg ko ci loxol bàjjen soxna Maymuna moom sëriñ Tuubaa xaadimu rasul waaye teg ko ci loxol Cheikh Mahamadul Fadal tey jii di bisub sant yàlla waaye bisub sant sëriñ Tuubaa ndax jëfi tey jii firndeel na yaakaari ëllëg yi waaye sa bàjjenu bopp bi yaral la boppam dalal la jàng tarbiya la taxawu la nga àndoon ko ak sa mbokk mu baax ma doonoon sa doomi ndey di sa doomi sëriñ di sab xarit di soxna maam bu sa baali nga daan ko wettali ci xol daan ko wettali ci kaw mu jàppe woon la comme jëmmi boppam yow it nga jàppe woon ko sa jëmmi bopp ngeen ànd liggéey bii ba tey jii damay wax ne hasard du am ndax tey kat da ñëw toog di soxna Mame Boussa tey jii da ne may soxna Bally kon yow soxna nday demal toog defari muraakami andil ma ko fii ci sama wetu doom soxna astu loolu boo xoolee ba fi bàjjan jógee ak léegi ñaar fukki at la yoo xam ne soxna baali taxawu na ko laylatul xadar ginnaaw bàjjan kon bii benn la ñaar fukkeel ak at ak benn lii mooy laylatul xadar ji soxna Mame Boussa Bally njëkk mu mel ne ab tàmbaliwaat la tàmbaliwaat boobee nag yàlla na ëpp li weesu soxna su am xelam dal na ab xolam sedd na weetut itam jaaxlewut ndax bu gestu woon gisu la lay weet waaye woor na ko ne li fekk mi ngi teg bëtam bi ci sa jëmm ji mi ngi gis soxna Bali mi ngi gis soxna May mu ànd bokkam yi nga xam ne miin nañ sa jëf jii ci kër gi. miin sa taxawaay bu rafet bi di soxna may moom sëñ Modou Fati Xari soxna maam Jaara saar mais mu dendal ak soxna may moom Cheikh Mamadou Mourtada ak bokk yi nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mën nga ko ne bis sàngam nga ñëw ci kër gi ba nga fiy ñëw it nangam nga sol di wala fi andi ñoom ñëpp ñu ñëw fekk fekk si ko liggéey bii nga liggéey mu wóor na ne asakay la nga daan jox soxna baali la nga daan jox soxna baali mooy asakay lii nga andi tey la nga daan jox soxna baali la nga daan jox soxna maye doon asakaam mënoon nga ba mu demee nga ne muraaki mi kat na ko ndey bu sa yóbbu rek waaye lu mu lu mu am doy na wala na toll na loolu daaw la waaye wan nit ñi ne leen sëñ Tuubaa amul tànki ginnaaw moo tax nga ne leen lu ma daan def danaa ko ñaar ce te it nii nga ko defee de ku ko gis xam ne jëf joo yéene ci sa xol la jëf yit joo xam ne xam nga fa nga ko jëmee ndax bis bi moom du bisub soxna baali du bisub soxna May bisub sëriñ tubaala kon bis bii ndagam soxna May mun na moo toggaloon boppam reer boobee yët ko sëñ Fallou mu wax ko ne ko loo ci jublu mu ne ko amoon yéene toggal sëñ Bamba reer ci guddi gi yow mii nag yaa sëñ Bamba kon reer baa ngi nii sëñ fallu wax ko ca lam ca kon xam nañ ne bis boobu du bis boo xamante ne bii bis buy taxaw la ba ngeen koy def ca daarul mooti di ko def ca daarul waxaab ba bi ko sëñ Abdou Lahad di tuxal si di ko andi Touba kenn nattabliwut ne Toubaay daaw ji fukk ci ne daaru waxaab bi soxna may mun a ja te noonu lañu wóore ne laylatul xadar ji mooy gàcceel joj daaw ja ndax sëriñ Touba noonu na woon sama tey ju ne na gàcceel sama demb loolee nag gëmee nañ ko ci sa jëf ji tey jii kon soxna Astou nee na moom day mënulaa sant ndax day mel ne ku taxaw naan maa gërëm sama yaay nee na li muy def daal mooy sàkku ci yow ak ñaan rek lay sàkku ci yow nga ñaanal ko ba àndandoo gii mu àndandoo ak njaboot gi di ko jëf ci sa kanam nga dundaat fi téeméeri at ñu di ko def nga fekke ko bis amut lum ciy fas wala mu ciy fasal kaneen ndax boroom a ko fas ba noppi waxoon na ne liggéey bii sun borom moo ko gërëm ku yàlla gërëm sa jëf rek a ciy def dara nit mën naa am ay milliards bëgg koo def ci laylatul xadar ci du ko ci def nit mën naa am benn dërëm képp sun borom baaxee ko mu def ko ci laylatul xadar ndax genn guddi la goo xam ne sun borom a ko jagleel xeetu Moustapha sallallahu alayhi wa wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko danaa la berndeele jaamu yàlla juróom-ñett fukki at ak ñeent yu ma gërëm ma defal la ko ci génn guddi sa xeet wi am ko nga xam ne génn guddi googu képp bu ko yàlla nangoo sa déyrub dund mën na laa jariñ adduna ak alaxira ca texeeg adduna ak alaxira ngi ci yéen nag waxuma la ngeen def ko benn yoon waaye def ngeen ko ay yoon yoon yoo xam ne guddi gune ne ba ko suñ borom nangoo payug juróom-ñett fukki at ak ñeent la leen ci fay yàlla dencal leen loolee kon genn guddi gutal ne moom amut wax na Bali daan wax ne ma muraaki mi muraakem barkeelu la bu ma sañoon ñëpp di ko jariñoo tey jii nag soxna Bali nga ca àjjana dend ak sa sa bàjjan bu baax ba soxna may Maymuna waaye ñi ngi jàkkaarloog yow de seenum xol seenum seenum xel dal seen xol sedd ndax am ci yow yaakaar ak rafet ci yow njort moo tax ñu bàyyi la ginnaaw te wóoroon na leen ne buñ la bàyyee ginnaaw it dara du ñaaw kon nag soxna si nee na mi ànd ak bokkam yépp di ñaan yàlla mu may la fanu gudd lool wa ànd ak wér gu dolli la kattan bàyyi la sam xel ba lépp loo yéenee liggéeyal sëriñ Tuubaa nga def ko di ñaan nag lépp loo xam ne soxna si nar na ko koo jox ci bis bi yàlla na ko bokk ak njaboot gi tàmbale ci soxna nday Buso ba ci ba ci ba gën doon gone di leen ñaanal ñoom itam seen yéene ndax seenub taxawaay rafet na kenn nattablewul ne soxna Asta sa doom waaye soxna nday moom soxna Bale doom mooy ndeyam boole googu yàlla boole njaboot gi nag fekk mu nekkoon ci seen i wayjur waaye tàmbaleewaat ci seen i maam diggante soxna Maymuna ak sëñ Falilu ba jaar ci sa diggante soxna Bali ba jaar seen diggante ñoom ñaar ñi yàlla nañ ko def at yu baree baree bari ba seeni i sët di ko def lépp lu waay fas ci bis bi it ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne tuba yàlla nga ci dajeeg ñeenti pay yooyu di fayu payuk sëñ Fallou payuk soxna Maymuna goog soxna Bali ak sa gos yow mii nee na nag ma nga lay waxaat lam la waxoon bis baa ngi noonu ñi ngi la koy dénk nga dénk ko sëñ Fallou ku am yéene ñëw na agsi ku yi am yéene ñëw rek na agsi ku ñëwit na delluwaat ci jàmm lu fi waay fasit na ci jot yett yooyu daal la la dénk moom mii nag ñu dénkaat la ko sàkku nga ñaanalaat ko sun borom yàggal ko fi te dolli ak wéram jàng na la laylatul xadar déggu ko da koo jàng mosuñ cee def dara loo xam ne ump na ko wala ñu nettali ko lépp ci kanamam la te mos ta bëgg mbubb baaw mu bëgg aw dàll la ta am yéenay tukki fenn newoon ci ginnaaw maamam di ko liggéeyal ba ba nattabli woon a maamam gërëm na ko mu ne ci ginnaaw way juróom wi di ko tërbiyu ba mu gërëm ko ñu bàyyee ko liggéey bii na ko ñaanal ba liggéey bi mu àggale ko foo xam ne la ci soxna Bally defoon ak la ci soxna May di def mooy doon asakay lim ci def moom mii ñaanalit njabootam gii nga xam ne ñoo koy wettali te gore lool amu ci kenn koo xam ne am nga xalaatu dara ci kër gi lu weesu am yéene ak ñewent ci soxna asu ak di ko ñaanal yàlla yàlla jàppaleel ko boppam dëgëral ko Serigne Touba nag waxoon na maamam maam Thierno na ko Thierno lépp wut naa ko li des mooy fulla ak jom soo ko amee doom manqué dara kon nag fulla ak jom rek mooy àggale yëf yi waaye bisub Serigne Touba moom du bis buy dellu ginnaaw du bisub pexe du bisub bu ñuy def ay réunion ngërëmul yàlla lu jaar ci sëñ Touba jaar ci soxna May jaar ci sëñ fallu mu digli ko ñu di ko def képp ko am tawfeex rek def ci dara kon nag yoon waa ngi nii ko soxna May defee daayira yi nga xam ne ñooy ñooy ñëw ci laylatul xadar bi gis nañ ne soxna si moo leen ko daal ubbil ubbilaat na leen ko wan na leen it la ma ci daan def yokku naa ko te la ma doon séntu ci kër gi it maa ngi koy séntu bi muy dugg ci mbaar mi rek daal la muy la summi ne man fii soxna may laa fiy fekk fekk suuf fi soxna assu fekk suuf fi soxna baali soxna may la fi doon fekk te soxna si moo waxaloon boppam ne fii moom kërug sëñ tubaa la mbaar mi it laylatul xadara ko moom kon nag kërug sëñ tubaa ku fa jëm mën ngaa waat ne loo fa manqué rek ci sa pas la kon soxna si ñu ngi sant bu baax a baax a baax a di ñaan yàlla yàlla na taxawaay bi yàgg yàlla na la yàlla fay ci njaboot gi ba lépp luñ la yéenee defal ñu def ko di santit bokki boppam yi di soxna may moom sëñ Modou Fati Khari soxna maam Awa Touré mi soxna maam Diarra Sarr soxna mayum sëñ Mourtala ñoom ñëpp seen taxawaay bi benn desu ci ginnaaw na nga leen ñaanal ñoom it ba seen yéene ci seen bàjjen boobee ñu àggale ko ndax amuñu lu dul kër gi kër gi la ñuy sagoo moom la ñuy tiitaroo moom la ñuy walle amuñu xam jëmuñu faneen kon nag na nga leen ñaanal ne bii ker gi daana ko def rek buñ buñ ko defaatee rek mu gàcceel loolu daaw la ndax mooy seen yéene ñoom ñëpp jërëjëf yar Yaram laylatul qadri xayrun min alfi shahr